ñu gën koo xam ci Pape mbay ci atum 1991 1992 la ñibbi si Thiès mu jamono teel ak ay ndaanaan ci wàllu làmb ñu mën cee lim Umar ko ak Mbaye Gaas mu am benn moment mu dëddu làmb nekk ci jàngu métier ci atum 2010 mu gunge kii di raxam ji di Matar mbay ambulance waaye ci atum 2012 la waajuram bu góor dénk ko carrière kii di Matar mbay mu am ci taxawaay bu mucc ayib mu gunge.

leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal président de la république jàmm ndax bu amee jàmm réew mi am jàmm xalif général Serigne Mountakha Bassirou ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu aussi Serigne Mbaye Sy Mansour di yóbbaale xalif général yëpp kilifa aada yi aussi ñu ngi leen di nuyu di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw suñu borom yoromal buum ba ñu dellu ci activité ñi nga xamante ne nii aussi seenu tawat tëdd ci lalu hôpital yi suñu borom fëgg seen bopp ba ñu dellu ñoom it ci seeni activité bu ñu génnee ci loolu nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa R100 Daaru Salaam gi nga xamante ne nii foofu la ñu jógee nuyu aussi équipe RTT TV bi yëpp équipe technique bi yëpp ñu ngi leen di béggee bu baax di leen ziar bu ñu waxee Babacar ak Doudou ñu yóbbaale ñëpp géew am na femme bu fa ne nag maa ngi moom neexoon turam dootuma ko tudd ci biir émission yi noonu laay nuyoo moom Mamadou sekk directeur général bu nga xamante ne nii moom moo nekk RTT TV mais Khadim Soumaré également directeur programme mais nguy faama laa Linguère directrice commerciale ñu koy bëggee bu baax di ko ziar Didier daa nag dama koy baal rek yóbbaale ko nuyu ko bu baax ziar ko gannaaw loolu ku ne xam na ni xew-xew amoon na ci biir Thiès mu nekkoon ngemb door édition 2024 mu lëmbee woon dëkk bi ci weer wi ñu nekk defe naa ni weer wi génnaguñ ko pendant avant après RTT TV da ciy ànd ak yéen di leen jox lépp lu nga xamante nii actualité la mu jëmoon ci ngemb door bi tax tey ñu dalal ndaanaan bu mag boobu nga xamante ne ni gis ngeen léegi biographie moom mooy Pape Amary Mbaye di manager bu mag a mag di jàmbaar bi nga xamante ne ni bi mu ci wàllu see mun naa ni yàgg na yàggul mais ràññeeku na ci wane na ci boppam mais également mi ngi ciy demee jom fulla ak fayda lu mu mën ak lu mu mënul ngir yóbbu làmb dëkk bi ci beneen niveau ba tax ta ba tey taxagul <laughs> yéene bi mat mu ne rek damay ànd ak làmb ci raison bi di ko épaulé ba mu àgg o sommet wala ba ñu génnee roi des arènes insha allahu noonu rek laa koy joxe kàddu gi mu nuyoo ñu doog a ñëw ak moom ci waxtaan wi doyen Pambay ñu ngi lay nuyu. Euh, xanaa ñu doore suñu nuyoo bu ñu ko daan dooree rek daal di nuyu Seex Muntaxa mu Seex Mamadou Bachir bu nu fa jógee daal di nuyu nag Serigne Mbaye Sy Mansour waaye nag suñ duggee fii ci diwaanu Thiès suñu bunt ci yoonu murit la ñuy nuyu muy sëriñ Cheikh Touré mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal Touré man moor yi mu yàgg fi lool te wuuti fi baayam ba eggalee liggéey bi nga xamante ni moom la ko Cheikh Khadim santoon waaye nag bu ñu génnee foofu rek dañuy daal di mbartal rek ba egg nag fi nga xamante ni mooy El Hadji Ahmad Baro bu nu fa duggee rek dañ fay fekk alxalifa muy alaaji Muniru bu ñu ko nuyoo daal di nuyu kenn ci ak njabootam muy ba di borom référence suñu ko nuyoo rek dañuy daal di jël nuyoo xadara bépp teg ko ci loxoom mu jàllale ko ci ñëpp ñu fa ne. noonu nag la ñuy daal di jàlle ba Nasru fekk fa doomu baay Modou Kan jë muy sëriñ Assane Kan borom Nasru waaye nag borom mbaaleen bu ñu ko nuyoo nag du fàtte kalimatul xaq muy sëriñ Omar Njëgën daal di dugg Medina Fall nuy xalifa Maam Mbayloo muy sëriñ Amdi daal di nuyu sëriñ euh, Modou Mbend Fall xalif général ku lu Baye Fall bu ko defee rek ñi daal di dëxëñ nag këri diine yëpp nag jël nuyoo bépp rek teg ko ci seeni loxo bu ñu duggee nag ci këri làmb yi dañuy daal di nuyu ki nga xamante ni mooy kër Diop nga xam ni moom la ñu jël làmb dénk ko ko nga xam ne gouverneur moo ko ko teg ci loxoom dénk ko ko mu koy saytu mu jiite sergéri lit bu Thiès bu ñu ko nuyoo nag nuyu ña nga xam ni mooy inspecteur régional des bi nga xamante ni moo fa nekk ak moom nuyu Assane Fall nuyu nag Mamadou Seck Cheikh Vieux seen mbaaxan Gomis daal di nuyu Antoine wala sax ñu nuyu képp koo xam ni rek ku nekk ci ab arrêté la te nekk ci CRG wala CDG te ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy dundal làmb ci biir dëkk bi. daal di dem nag ba maison d'arrêt et de corruption yi daal di fay seeti suñu doom di leen nuyu mën nañ ci jiital ku mel ni di Gaynde di suñu doom ñu koy ñaanal natt bi nga xam ni moo ko dal ba dugal ko fa. ñuy ñaan yàlla na ko yàlla sama borom teggil te teggil ko képp koo xam ne ku fa nekk la di ci yéene waale ndag ndag ak ku ñu fa fekk ak koo xam ne fekk nga leen fa ba yàlla teggi ko ba kenn ku ci ne delluwaat ci sa kër bu ñu demee ci lale hôpital yi di seet ñi nga xam ne dañoo taw tëdd ci te ñaan yàlla roof leen ak wér ba kenn ku ci ne mën a delluwaat ci sa njaboot noonu la ñuy nuyoo nag suñu xarit suñu mag muy le promoteur de la cité du rail muy Sidi Diakhaté wala le promoteur de bu dimension nationale sax lañ koy war a tuddee soo ko nuyoo rek day daal di jël nuyoo ay rakkam ku mel ni Baye Samba Ablaye Jaxate wala képp koo xam ne ab promoteur nga rek day daal di jël nuyoo boobu dëxañ ko ci moom. ah tey nag ñu ñëw fii ci RTT TV di nuyu équipe technique bi nga xam ne moom lañu fi fekk suñu ci jiitalee le PDG du groupe muy du Seck bu ñu ko nuyoo rek daal di nuyu ki nga xamante ni mooy Babacar daal di nuyu Khadim Soumaré nguy faama laa Linguère duudu caméraman bu mag bi di jëdaa mënu ma ko fàttee ba ci ma jóob jóob chauffeur ci nuyoo bi lay bokk ak ki nga xamante ni mooy yaafaatu di sama doom Pape ñu am mbégte bu baax nag ñëw ci kër gi nga xam ni mooy RTT TV nga xam ni ci suñuy kër la bokk wala mu doon sax suñu këru bopp nga xam ni bokk nañ ci ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla tey bu ñu xamee ci image yàlla ak RTT TV la kon dañuy am mbégte ak kontaante nga invité ñu fi dalal ñu fi rawatina nag ñu jóge ci bis bu mag war a sargal nit ñi nga xam ni ñoo ñu doon sargal ñu war leen delloo njukkal bokk tey bu ñëwee toog fi bëgg jàkkaarloog yow defe naa dinañ waxtaan mais dina xumu dina neex ba ca kanam. macha allah noonu rek laay sofee samay wax ci sa ay wax nuyu le promoteur de la capitale di Ray mm-hmm. mu jàllale nuyoo bi ci ku nga xam ne rek promoteur la gis nañ keroog moom it. décoration bi nga xam ne am na ko fa Ablaye Jaxate aussi Jander Baye Samba Gueye mais Serigne Cheikh ñaa ku ku nga xam ne rek promoteur nga tene ci région bi ñu ngi lay bu baax di la ziar bu baax a baax nuyu aussi Babacar Diop président CNG ak ñi ki nga xam ne moom mooy Assane Faye mënuñu wax làmb sans ñoom mënuñu def émission làmb ba tëj sans ñu tudd leen que bu dul ñoom làmb du am kon on est de ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mel ni bii mooy sa sortie bu njëkk ginnaaw trophée yi nga xamante ne ni ràng nañ la ko mais balaa ñuy ñëw ci trophée yeeg ni ñu la ko rànge édition 2024 ngemb door bi ban jàngat la ci doyen def Pambay non jàngat bu bu rafet boo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañoo wax ni c'est une première parce que defoon nañ ko fii euh, ak le président Abibou mu nekkoon bu ma juumulee Senghor d'or mais tey lii ñu organisé presse bi def ko àndandoo ci ak seen partenaire mi Pape Doumbouya wax dëgg yàlla jàngat bi ma ci am mooy dañ fay def loo xamante ni wax dëgg yàlla du ñu ni mosu fee am mais wax dëgg yàlla bu mel nii bii moom yaakaaroon ni mosoon na donte que bi amoon am na jaar ci yoon ñëpp sentir ko mais wax dëgg yàlla bii ni mu duggee ci xolu nit ñi xaw ma nag li mu fi gëj a tax ak ni ñu ko initier ak ni ñu ko defee mais wax dëgg yàlla am na fu mu egg nit ñi am na fu mu leen toll am na yëg-yëg buñ ci am te xam naa ne dinañ ko mais saal bu mel saal bu mel ni sam sa mbëri ñëw régler tranquille cérémonie bi ba bi muy tas nit ñi doyaluñ est-ce que est-ce que effectivement bu mel nii ci lambu Thiès mos na ko dund comme comme comme ni ñu ko dundee keroog. waaw mais bul fàtte ne nag nit yi Thiès li coow li bari bari Pape dañoo civilisé. macha allah. parce que li làmb di yàqu ci ay dëkk li muy toj yëpp vraiment tey boo ñëwee ci bis bu mel nii bis bu promoteur bu mel ni si di jaxate wala ay Baye Samba ak yeneen di tëgg. da nga ñëw stade bi fekk ñu tàngu takk or kaw ba suuf ràngoo ko di génn di ñibbi te du ñu am benn jafe-jafe kon làmb si lycée moom ci nitu Thiès la commencé ci fi la yem boo bëggee dégg dëgg mooy wax dëgg yàlla eh, dëkk yu bari sax dañ leen a war a roy ci civilisé ci rawatina nag làmb ji nga xam ne ñun ci la ñu ne parce que li muy bari bari ay wax ak coow soo gis benn làmb boo dégg ñu ni la tey ji làmb ji toj na ci biir Thiès def nañ fa lii def nañ fa lu dul làmb am jeex ci jàmm nit ñibbi ci jàmm kenn ne dellu sa kër kon tey suñu organisé bis bu mel noonu ci saal bu mel noonu xale yi ñëw akub dal ñëpp ñëw fekkee ko dund événement bu mel noonu vraiment defe naa ne bu def nañu leen war mais loolu rek moo leen ndax bis bu nekk nga dégg ñuy jooy ni dañoo amul ku leen di jàppale kenn du leen soutenir bàyyiwuñu leen xel su nit jëlee ay millions di ko investir ci ñoom ci loo xam ne amu ci lu dul bëgg euh, ñu am mbégte defe naa ne kon la ñu def rek moo leen war mooy ñëw fa ci jàpp amul benn alkaati bu fa taxaw kenn gardé wu leen làmb foofu la toll te loolu la war a am. waaw nee nañu ko keroog dañoo war a civiliser ci war nañoo mën a tëgg làmb ba mu jeex sécurité ba fay ñëw xam nga lu leen fay indee pour ñëw teg nit ñi maanaam ñu toog jaar jël affaire mais am ay ñooñu ñoom sax warut a sax sécurité di ñëw ci làmb loolu làmb war na ko dépassé loolu wax dëgg yàlla bu ko Cees waaye dafay paap du ma ku leen xanaa leen ci encouragé. te xam ne loolu moom seen yëf la tey ñaan loolu jëm ci kanam mais vraiment li ñu dund keroog néew ma mosuñu ko dund ci kees mais nee naa la bu fekkee mos na fee amit day bëri. Pape Doumbouya jërëjëf. maa ngi koy wax di ko jàllale mais kàddu waa làmb yëpp la jërëjëf parce que taxawaay bi rafet na soutenir bi nga xam ne soutenir nga ko làmb waa làmb ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax mais comité de organisation bi bu ma jukkee Mamadou Seck Aboubacar Dramé ak El Hadj Moustapha Ndiaye. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax parce que liggéey bi yombul woon gis nañ sonn ñu tàyyiwuñ loolu lañ ci bëggoon journée bi réussir réussir nañ ko car macha allah yàlla na yàlla yàggal leen ci suñ kanam ngeen yàgg ko taxawee muy gën a nice parce que édition bu ñëw rek dafa war a suul bi passé comme ni nga ko waxee léegi amoon na mais est que bu mel nii mus naa am kon bu déwén est ce que warta nëbbu bu ren ku mel ni Pape Doumbia taxaw soutenir làmb ci lu mel noonu lan la nga xamante ni yokk na ko ci làmb Cees ci guddi yi nii ñu toll. dina jàngalaale ñu bari wanaat ñu bari yoon parce que nag boo bëggee dëgg dëgg kaay ma wax la nii di Cees nag am nañu fulla am nañu fayda de ah, du ma ni ah, Pape Doumbia ay garaatam di yokku de waaye li ma la mën a waatal mooy làmb moom am na ci point yu ci marqué yoo xam ne dootu ko ñàkk ndax nag dañuy ah, public bu discipliné ba pare nekk ay nit ñoo xam ay gor pire la ko séqal te lim ñu defal bu mu yaakaar ne nag ñun fàtte nañ ko wala ñu di ko jéem a fàtte fàtte ndax lu lu raar la ci dëkk bi ah. boo xoolee chaque si muy sunu tanoor yi di ñëpp kenn ku ci ne am nañu idée yi am nañu xel mi am nañu lépp mais sunu problème mooy naka lañu koy defee ndax ay problème moyen kon suñu gisee jëmm ju mel ni Pape Doumbia bis bu ne nga dégg ko Pape Doumbia fu ne loxoom mi ngi ko fay dugal xëy na day doog agsi ci làmb ci ñun mais gis nañ ko ba tàyyi muy accompagner ay promoteur ñu koy tuddee ay bis muy jël alalam di ko ca def kon defe naa ne digganteem ak làmb du guleet mais nag da cee rax rax ñoo xam ni bokkoon du ma ne bokkuñu ak ñi mu doon àndal waaye dolleeku nañ ci ak njabootam te dootu ko rëccu parce que ñin ko séqal dugal nit ñoo xam ni ku mel ni Mamadou Seck nit la koo xam ne xam naa ko wér ku ko lebal far ker mu fayee lu xam naa ci ñu mel ni ay alaaji Moustapha Ndiaye donte ka ci këram. mais nit lañ ñoo xamante ni caaxaan yëkkatiwu leen ci yenn yi mais ku leen lebal it ñu fayal. man mii kasaalik musuma defal musuma defal lenn mais li ma defal nii mel na ni ay milliards la ma defal ndax man damay wax ni bu nit amee loo may defal defalal làmb soo defalee làmb rek ma leen defal xam parce que man làmb laa bëgg ci sama xol te man ku defal mbërum làmb moo xam fu mu la dëkk ci dëkk bi dafay mel ni man sa mbokk nga ko defal soo gisee mu bëgg ku mel ni Ousmane Diagne loolu laa ko bëggee xamul sama tur mais damaa gis muy jàppale mbër ku mel ni Pape Mbaye boo demee jaxaaw Habib Niang li taxoon ma bëgg ko dama gis muy jàppale booy jaxaaw ma bëgg ko ndax man ku jàppale làmb bëgg la nga ñëw Habib Kane fu làmb taxaw nga gis mu nekk ci seen wet di leen soutenir di leen jàppale ñett ñi laa jëloon porté wu jàppale ni man lu ñu nekk guddi ak bëccëg subaa ngoon dama teel te pourtant xamuñu ma wala bii ñu ma wala ma dara mais làmb man day sama yëpp képp ku ma gis nga ciy jàpp di jàppale di dama lay jàppale comme sama bopp loo nekk Boubacar lii Boubacar lii nag ñëw bërki dee mu defal ñu moom it loo xam ne mooy comme la ñu Yankhoba Diattara defaloon Yankhoba Diattara ñu ko defaloon Ousmane Sarr Boubacar Sy ko ñetti ñoom ñett ñi laa sa gis tamit ñu subventionné ay écuries yu xamante ni ñoo nekk ci biir dëkk bi yaa ngi yëkkati seen alal def ko ci ñoom wax dëgg yàlla loolu mbir mu rafet la kon ñun njabootu làmb daal ñu ngi leen di wax ni nekkuñu fi pour kenn lu dul ku fi nekk pour jàppale ñun tamit pare nañu pour jàppale. jërëjëf kooku mooy doyen Pambay nitu làmb ku jàppale làmb ñu jàppale la foofu la wàccee di kàddu mais dañuy ñëw ci métier management métier management fan fan la ko Pape sentiré ni lii gis naa ci sama bopp ba dama ciy dugg te bu ma ci duggee dinaa ci dégg daale comme ni ci ni mbër di defee loolu parce que dañ gis diggante bi ñu ci ñëwee bi ci biographie bi yàggul mais baatre nga fi raccordu ñu nga xamante ne nii tey amoon nañ taxawaay bu mel noonu initiative bi fan nga ko amee ak yëg-yëg bi dëgg-dëgg waaw xanaa ñu répété wax ko rek ndax la répétition est defe naan suñu dégloo ci samay vidéo wax naa ko ci du benn yoon du ñaari yoon may wax ni làmb yàgg naa ci ndax 88 89 fekk na ma may toog ci sama cimikaay suma ay ndijaay suma ay mag ku mel ni Gora bi nekk tey école de lutte. Mor Fadam Mor Fadam sama doomu ndey la may toog ci cimikaayam moom ak. Gora Fall waaw muy sama mag. Oh. bi muy bëree fii ak bi muy bëree Batlen Sikki Daaru Xuddoos man maa toog ci cimikaayam bi Macoune Ndiaye di bëri fii ak Batlen sama sunu kër gii la ngeem moo ci marché ngelaw. dem Macoune Ndiaye moom li ma koy dégg nga koy wax. muy Macoune Ndiaye Ngom doon di champion boo xamante ni champion hors pair kenn du ko nattable ci Sénégal damay wax ni làmb bu doon euh, Pape meloon na comme ni mu mel tey di nga dégg roi des arènes boo xam ne dëkk ba mu ne ab oto du fa dem. Hmm. su fekkante ne làmb maanaam nii mu mel. meloon na ko ca nii mu mel. bu ñu meloon ay 86 87 jàpp 88. Mhm. di nga dégg euh, roi des arènes boo xam ne localité ba mu ne. Mhm. da ngay dem ba egg ñun la wàcceel fii la oto mën a ay saret lay egg. est-ce que mais nag làmb bi melul woon nii jamono boobu tax na moom laa lay wax ni bi ñu koy jamonoonteel fii ci Thiès ku dem écr écri waalo di fa dégg champion bu ñuy wax maam bu maam bu mi ngi nekkoon fii ci terrain raay daan yoroon benn saretu mbaam di root. maam bu ma bu. boo ko woowee ku mel ni Alioune Seye 2. Eh, ñoom dinañu xam kan ngay wax ni dinañu xam kan mooy maam bu noonu ngaa yem ci maam bu rek boo ñëwee fii nga xamante ni mooy Medina Fall eh, eh. fekk fa njëkk njaay moo daan ab conservateur la woon léegi chauffeur taxi la moo njëkk bëri ak Omar di ko fii ci arène Lamine Jàmme mbay gaas bi may wax doom baa njaxan bu tegu ca max ak mbargaan muy asec man Ousmane Fall laa fa bëreel bëre fa ak Assane Mbaye géwal mi ngi dëkk foofu ci juuti ba. doon ngaa takk seer kon. non man Pape waxuma ci ay nit ñoo xam da nga naan da ngay wax dëkk bu nu xamul Ousmane Fall mi ngi biir Medina Fall. li ngay wax nii kay duut nga ci baaram ndax ñi nga bëreel ñëpp. Assane Mbaye bi may wax mi ngi dëkk kër Baye Alsane Mbaye boo ñëwee ci kër Abdou Mbaye jël ko bi foofu la asan Mbaye dëkk ma jaañ jot kaw sara kon man waxuma mbër mu dëkk mbadaxul waxuma ko dëkkul ci dëkk bi ñi may wax ñi ngi dëkk fii ci Medina Fall génn ñu fi ñooñu lañ jamono teel bokk ak ñoom génération suñuy rakk nekkoon ku mel ni Moussa Ndoye Assane Mbaye sama rakk sax bëree na fa biram tëgg mii nekk tey ci écrit jaxaaw di ne biram boobu boobu ñooñu ñoo tolloo génération ñooy ñun ñoo leen féete woon mag ku mel ni carte di bëri ak maxu yaare booba làmb euh, demewul nii jamono yooyu nag fekk may doo ko jóge jogo di ñëw dugg si ci làmb booba Matar Mbaye ambulance bi sama rakk sax xamagul ndax matagul sax a bërintu waxuma laa doon bër bëreentu waxuma laa doon bër mujj gi bi muy démarré làmbam fekk na boobu làmb ji niñ ko jàppee mooy nekkul loo xamante ni métier la war a doon wala lu nit di tedd wala leneen. ci jamono boobu te jamono boobu ñu wan ko ginnaaw dem jàngi métier ci biir njàngum métier moomu dem nañu ba yàlla suñu borom mel ni métier mi dañoo jël potum ndox naan ko ñu yombaloon ko lool ci diir boo xam ni yàggul euh, wax dëgg yàlla ma ci remercier de passage suma patron Mediangal métier di ko ñaanal. muy moom Dieng di ko ñaanal yàlla fi yàgg lool mi ngi dëkk fii ci kaw sana yàlla dogal mu wëlërante ak ku mel ni Sidi Jaxate mii sama relation ak Sidi foofu la démarré. ah du làmb. déedéet mboolem kër gu Sidi Jaxate dëkk ba ci gii mu nekk di Grand Stade bi sama patron boobu moo ko jàpp mais man maa nekkoon conteur travaux maay chef de chantier nekk foofu daanaka sama relation ak Sidi foofu la commencé bi may xamante ak Sidi Jaxate Sidi Jaxate xamul làmb tëggul làmb ah, te Sidi rek def na ci làmb vingt ans uh-huh. booba Sidi ay concert yu Youssou Ndour la ko nit ñi gën a ne sax ci événementiel li muy def muy ànd ak Sidi fii agence Tigo bii nekkoon bureau fans club Youssou Ndour bi fi nekkoon foofu maa ko liggéeyal di Jaxate ba mu egg ab kenkaay refa nekkoon kon sama ànd ak Sidi du du tey bi mu demee nag ba Matar di bëre sama rakk Jaxate Mbay nu Seck ñoo fa nekkoon comme ay ménager euh, ak a Njaay ma koy nuyu de kooku carrière Matar Mbay mi ngi dëkk fii ci marché nekk fii ci Ngent mais marché central gi lay jaay ci wetu Sàmm moom Gora Ndiaye Matar Mbay ambulance carrière am su demee tey ba ñu koy tudd ci làmb mu dem ba nekk ab champion du ay mbokkam mais Gora Ndiaye mii moom la moo ci investir alalam wala mu ànd ceeg ay nit ñu ci investir seen alal ku mel ni Ousseynou Seck ñu jàppale xale bi éppale ko. bi muy dem Dakar mun naa leen dañoo jënd place am Dakar dañ ko doon fayal fay pour mu bëree. pour mu bëree. sëñ Modou ñaar tëgg ko ñetti combat muy digganteem ak Lour bu Faalaay Balde. digganteem ak building bi njëkkoon a bëree guy gi. ak digganteem ak Bébé Bal. ñu lancé ko fekk booba Sidi Jaxate taal na ko ci dëkk bi ba mu tàng ba bëri lu tolloog fukki combat te ginnaaw bi laalu suuf mu enchaîné loolu dem Dakar loolu mooy carrière Matar Mbaye ambulance bi mu demee nag. bu nu fàttalikoo defet bi mu njëkk am mi ngi ko am digganteem ak caat booy bambara. ñu enchaîné ko muy 2012 2013. mu si bëri jiwaat ci ak ki nga xamante ni mooy Ahmed Dem tegale ñaari defet sama papa woo ma bu ma ñëw mu ne ma sa rakk ji day yaa ngi koy seetaan te xëy na mii li ñu la ci làmb te man day mbooleem ñu nga xam ne sama njaboot lañu yow laa ci ëpp yaakaar ci nga jàppaleel ma ko. ni ma dama la koy dénk ma ne ko. parce xam na la ci làmb autant. waaw ma ne ko ñaanal ma ci boo ma si ñaanalee dinaa ci am ndam mu ñaanal tàllal samay loxo mu ñaanal ma yëkkati ma taar ni ko même bu ma la santee mu sant la bu leen demal defal lim la sant moom te bàyyi li sant noonu laa àndee ak moom maa ngi ko njëkk a yóbbu digganteem ak caatu booy bambara. mu na autant pour moi armée bu benn baraak. armée première combat seen première édition ba Iba Mar bu bu bu metti ba. ñu dem booba. Saliou Ba moo koy signal Dakar ñoom ay ménager la ñu woon ku mel ni euh, euh, Gora Ndiaye Jaxate Ousseynou Seck mais ay ménager régional la ñu woon booba dugg ah, ñu national dañu jël bi ni doog a dem dañ ko bàyyi foofa di jox ko ku mel di ko signé donc bi ma ñëwee ànd ak nu muy sama rek ma xool compétence bi ne ci moom ma ne ko non moom fekk mu nekk national fekk na mu dugg nag ci bureau national ma ne ko léegi au ngay jël sa mbër keneen bi ko signé léegi désormais yow yaay nekk maintenant dëgg. Matar Mbaye ba bi ma koy yóbbu muy voyager masumaa jël sama loxo teg ko ci contrat bu Matar bi. Ousseynou moo koy signé Ousseynou moo koy moom laa ko bàyyi parce que ñoom ñoo ko tàggat ñoo tax mu doon li mu doon ba ëgg foofu kon du ma ñëw tey jafe tax sama papa indi ma may ñëw di ci yor benn kilifteef bu dul nekk seen mag ñu déggal ma nag topp sama ginnaaw ñu àndandoo ba yàlla suñu borom defal ñu nga xam ne moom lañ defal ci moom. bi ma ñëwee nag Maodo Seck bokk na ci ak El Hadj bi nekk CNG. El Hadj ñun ñaar pour rappeler ni mi ngi nekkoon fii ci central photo ma doon nekk photographe man ak Seydou Diallo papay Alaaji Gaynde mi mhm. ñun ñoo doon photondoo ak papay booy mi waaw ñoo doon photondoo ak kii papaam yéen a doon photondoo d'accord bi ñuy photondoo El Hadj Cissé moo yoroon développement bi nekkoon booba photo yii xew xewul Cissé bi nekk CRD Dakar maa la man leen boo daan développé labo central bi amee sëf yi di yoon boobu foto amul woon carte yi nii foto boobu pellicule la ñuy photo moom moo yor développement bi développement la ñu ko mooy boo ñëwee pellicule bi la ñuy développé ba glissé yi génn machine yi doo ko tiré boobu machine yi nouveau modèle numérique yi ñëw léegi nii yu technologie boobu amagul woon boobu hélas moo ma ni làmb boo ci dugg ah mu ni ma demal nga nekk manager Mamadou Seck accompagné ma ci Ousseynou Seck ñëw accrédité ma parce que moom moo nekkoon ménager booba ci écrit bëgg sa wayju kon moom moo ma dugal nàmpatal ma ci li nga xamante ni mooy métier mi tey kon même bu may wax yéen ngeen yéen ñu gis ma ko doon wax ci eh, média ak leneen damay wax pour maanaam làmb moo tuddee noonu. pour jaay bis waaw pour taaral bis bi ak bëgg nit ñi commentaire et puis man may nit koo xam ne damaa bëgg coow nag bëgg lépp lu ma dugg nit ñi di ci wax moo ko waraloon may waxee noonu mais ku ne xam ne sama diggante Ousseynou wala sama diggante yeneen ménage yi sax maanaam altine ak talaata la bis doxu ci. macha allah dañoo am ci man jafeel tey jii niveau bu ma toll tey jii ba mën faa egg yàlla ak ñoom la parce que mooy tey jii su ma ñëwee même bi ni dem euh, national euh, ñii def ay élection bi ma ñëwee pourtant su ma leen doon wax te faale wuñ ma du ñu àndandoo man ñun ñëpp ñu àndandoo ñu dem fexe ba bureau ba changé ñun ñëpp ñu bëgg am fa ay ndombay tànk ba bokk nekk fa kon ñooñu dañoo am ci man jafeel. di ànd ak man bu ma ñëwee ni leen nañ def lii ñoom ñëpp ñu àndandoo ak man kon ma ne su fekkee gor laa bu dee dañ maa décerné dara na ma ko waxee woon laa koy waxaat dama ko yëkkati teg ko ci loxo xaadim saar mi xam ni moom la yàlla dogal bu ñu doon jiite. su ma ko tegee ci loxoom pare mu yëkkati ko teg ko ci Aziz Aziz Ba mi nga xam ne actuellement mooy suñ suñ président mu tasaare ko ci ménage bu nekk ci biir région de Thiès diplôme yii bu dee luñ ma jox ak lu mënti doon xanaa téye gi laa ci am laa ko delloo ñoom laa ko di ñoom ñoo su ma ci paree doo ko dem national teg ko ci loxo loxoy burxaan mu tegal ma ko ci bépp ménage boo xam ne mu nekk Sénégal parce que nag suñu dimension bi ñu toll weesu nañu ménage bu nekk biir Thiès wala mu yem Tivaouane wala la fi ñu toll nii fa fa carte gane fa la ne muy man di Ousseynou di Saliou Sall xaadima ñëpp a jeex na ñuy tuddee Burxaan uh-huh. di ko tuddee Paala uh-huh. di ko tuddee nu mu tuddee saxati Basiru Baabu yi ngi daan dégg uh-huh. léegi làmb daa toll ci ñu naan Papa Amari May la ilaha illallah dama na door na loolu waa Thiès dañ ci bàyyi seen toll na ay temps pour nga am ménage bu bokk nekk foofa sax bu fees yombul woon léegi tey jii mënoo faa tudd fukki ménage biir Dakar. fukk laa wax yoo xamante ne suñu tur du ca bokk ñu ni dëkk Thiès amatul. kon nañu waa Thiès gën a jàppale gën ñoo bàyyi xel te xam ne ñun nitu Thiès mënoo leen gis fu ñuy des a ginnaaw lépp lu ñu dugg lu fu ñu dem dinañ fa am place fu ñu demit dina ca bokk. macha allah loolu mooy suñu métier mi ñu ne muy métier ménagement ñu fekk ci ñu am fulla ñu épaulé ma mu naan tey bu ma amee benn niveau bi Dakar ci sama dëkk laa ko amee ci base bi ñoo ma ñoo ma yëkkati ba pare moo tax waa Dakar ndax Dakar teg fi ma teg kon bu ma ko jëlee lu ma ci am lépp lu ñu ma deseen rek lu ñu ma jox dama leen koy delloo mais su ma defee loolu ba pare nag di ko sante nag sama mag gi muy Ababacar Sidi Diakhaté ndax kat biñ ma nekkee ménager tamit nekk gi ma nekk ci wetam permettre na ma tey ji lu baree bari yomb ci man ndax daf ma jël def ma may coordonnateur instructeur am mm-hmm. tey jii euh, mbëri ci bari am na yaakaar ni bu nu ñëwee jël seeni licence jox ma ko seenu bëre dina yomb kon di bokk na ci moom it dimension bi ma toll moom it da ciy jouer rôle bu ma a mag a mag a mag parce que dooleel na ma jël ma am fu mu ma teg ba tax xale yëpp am ci man yaakaar jël seen bopp dénku ma ko may ànd ak ñoom nag ci jub ndax man bépp xale bi may àndal te amaloo njariñ promoteur bay boo xam ne sama diggante yow du sori ndax man li làmb laaj laa lay wax mooy làmb daa am la mu baaxoo da nga koy def ko mën a ànd ak yow yóbbu la fa nga bëgg a def lii mooy secret Papa Amary Mbaye amul leneen. mais management am na stratégie am na complication bu méttee méttee méttee ba tax yenn promoteur yenn managers yu bëri yu tayeel rek duñu ñu ràññeeku ci wàllu làmb Papa Amary lan mooy stratégie ba nga xamante ne ni chaque année day battre record ci li muy def. waaw mais mooy li ma la wax rek mooy ma damaa gëm sama bopp Pape ba bëggee dégg-dégg Pape nee naa la. parce que sànq yaa ngi wax Ousseynou sànq mooy sa patron mais keroog yéen a yéegandoo ci pëjam. waaw d'accord mooy li wax nee naa la lépp lu nit di bañ ci àdduna ma xam ko bul ma ko woon. ah maa la ko woon de wala looy bañ ma raw la ca. Ah. du man sama gëm-gëm bopp laa am amul ku ma bokkal ak ku ma bokkalul lépp lu ma ne man ca kanam laay bëgg a dem. engagement ak détermination. samay doom sax laa jël Mamadou Seck engagé may woowee. sa kër. barke yonent bi engagé. mel ni coow li da ko àndaale ci làmb nag. sa coow yow. xam nga dañuy wax nit ku aw aw duqam weex man dama koo pentiir. maa ni lan dafa weex. da ngay dégg nit ñu naa la daa aawloo donc koo daa weex ak maanaam daa day nit ay coow daa bari ci moom man maa ko pentiir. coow jig na la dolli ci lu weex tal. maanaam coow jig na la samay mbir mu dox faaw mu am coow. bu bëggee dégg dégg. maanaam pour ñuy wax mën a arrêté tuuti ba ma wax la dafa am ci ay nit yàlla koy bind te nag du lu may bàkkoo du dara mais dama ne ni surtout làmb laa lay wax kaay ma wax la ci benn sécurité ñu baal ma ci kàddu gi mais ku amul ji koy ceddo mënoo ko làmb muy mbër hmm. muy ménage hmm. maanaam nga ciy yëngu ci bëgg ci dara hmm. du ma ne li nga doon ceddo cent pour cent mais faw nga am ji koy ceddoo joo xam ni moom bu jaree génn nga génn ko bu jaree neen di nga dem denc man xam maa la mooy stratégie. ah waaw stratégie boo ko déggee ji koy ceddo la dañ koo wott la <laughs> dañuy wott wax parce que làmb moo ñu baaxoo boo bëggee dégg dafa day métti moo xam ne dafa ànd ak loolu xool ko ci mbër dangay dégg mbër mu mel ni Modou lu ko yóbbu fii mu ne dañu waxante dëgg Lac de man ci sa ci Sénégal Sénégal ci bëre lutte avec frappe Lac de Guiers ci man. tey bu ñuy bu ñuy wax roi des arènes ci làmb ji man pour man Lac de Guiers mooy roi des arènes de 2004 jusqu'à nos jours mosoo leen a gis nit ku miniature yi jëlub Lac de Guiers ci Sénégal. 8 avril 2012 contre Eumeu Sène. non waxuñu miniature laa la ab jël ñu wane ni lii daa daanu xam nga boobu xëy na làmb nee na dafa daanu mais man maa nopp maa dégg ci làmb ñu Alioune Sarr docteur. mu ni boobu France la ko fekk mu ni jéem na woote ba sonn waaye loolu su ko fekkoon Sénégal dañuy kase verdict ba donc loolu d'accord nag nangu nañ ko ni daanu na ci ay wax waaye dama ne Lac de Guiers 2004 ba tey Lac de Guiers musul laal suuf. 25 décembre 2004. waaw ba tey jii Lac de Guiers mooy mbër mi musta daanu ci Sénégal kon bu ñuy décerner roi des wax dëgg bu ñuy wax roi ki musta daanoo tax xëy na nag da am trophée boo xam ne laalu ko. muy bii nga xamante ni moom lañ tuddee roi des arènes. bëreegul combat royal encore en tout cas roi la ak du roi. <laughs> moom mooy challenge. waaw bu dee chaque année. ma ne kon am ñu créé empereur. Euh. roi des arènes. waroon nañ ko utalu tur. bu fekkee làmb amul par parlo Pape waxtaan bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi sote di dugg ah, ci te ñu ngi ñu ngi ci ngemb door <laughs> am na solo benn parenthèse la woon xam nga leeral yooyu dafay am solo parce que uh-huh. am na ñu ne ci biir làmb te xamuñu dëgg-dëgg kan mooy Lac de Guiers numéro 2 uh-huh. Lac de Guiers numéro 2 mooy champion bi tegale 12 victoire déggul mu ñëw tegale 2 matchs nil uh-huh. mu nekk 14 combats 15e combat ci lay ñu ne Eumeu Sène daal mooy le 8 avril 2012 le 8 avril boobu boobu mooy deuxième fois mu koy bëre bëre na ko ak ak ak isaapuy 2007 bërewaat ko 2012. perte ko. Hmm. keroog contre Eumeu Sène ndaanaan la bu nga xamante ne nii def na li nga xam ne moom mooy devoir am ci làmb xëy na bëri na combat yu àggul parce que bu ñu ko compté day mat ci cinq hmm. combat yoo xam ne amul jël. tax nag euh, am lu gàkk-gàkk bu ne moom mais pour man loolu ci Lanze la moom ci làmb chaque année. moom dafa war a am kenn koo xam dafa war a dem découvrir ko koo xam ne ku mus a bëreek moom la. chaque année rek dafa war a am moom ci Lanze la ci biir làmb ñu koy ñaanal jàmm ak xéewal gis nañ ko mbaam ak Ada Fass taxaw ñu ciy ñaan jàmm ak xéewal ba yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm làmb rek moo ci gañee parce que làmb foofu la toll xale yi. na leen mag ñi may sens ñu bëre Sénégal jëm kanam. Euh, doyen ñu ñëw ci ba tey ngembu door bi. ngembu door bi lan la mën a ban boxin day la mën a indi ci ci ci championnat bi nag fii ci Thiès ci année prochaine bi ñu jëm. non bu bëri parce que bu dee ci wàllu mbër yi tey jii gis naa mbër yoo xam ne ni tey bu fekkente ne la am nañu fu ñu bëree suñu duggaatee ci arène bi dinañ soppeeku bari na fi xale yoo xam ne nee nañu déwén. dañuy yëg foofu ci kaw nee nañu déwén fu ñu bu dee ci espoir yi xale yi dañ koy organiser ndax dinañ liggéey lu leen ci boole kay laa gis naa ay xale yu ni tamit meilleur combat de l'année bi nga xam ne moom la wës jàmbaar ak laay Pythagore nee nañ déwén seen i combat bu jaroon taxaw de dara dinañ fexe ba dinañ bëri combat yi mel kon dèjà boxing day bi ngay wax mi ngi commencé am bu ci wàllu management gi ngay wax commencé na ndax man bi ngay wax démarré waat naa keroog ba ma génnee ca saal ba laa commencé waat. maa ñu taxaw foofu. Hmm. yow yow am nga sa benn adversaire boo xam bind na recours de nee na samedi da ngeen di taxawaat. mooy que. Fallou Seck la. Fallou xam nga mooy manager bi daa xam bind recours. nee na ma ah. mais Seck na xam ne recours bi day ñëw. xam nga xam moom daa am lu ma ko waxoon. dama ko di ñun on bokk pas dans la même non yooyu moom bu bu ko fi du face à face. moom daal dugal na recours xam nga luy xam nga luy wax ji. Eh, nañu xaar nañu xaar dañuy waxtaan xam nga tax ma wax la loolu. Uh-huh. maanaam bu doon ci football léegi naa kii ligue 1 lay football kii ligue amateur. Fallou Seck. waaw filo man moom bokkuñu. xam nga tax ma ne bokkuñu. ba déwén yow ah. Fallou dalay lemtu ba déwén. nee naa la tableau commune bi la yow ba déwén naa la wax loolu ay mbërëm nga koy wax. ah ni mbër yi déwén dinañ fexe ba bëri ji. Dakar bi nee ko muy bëre te bàyyi recours ah non recours nag kelam bu ah recours ci d'accord naa mais daan na la recours daan nga keneen recours yow. waaw daal mais moom moom daal recours recours. moom dudul bàyyi rek moom du bàyyi Fallou moom. ñu ngi koy nuyu au passage. di ko jaajëfal bi nga xamante ni moom mooy. Thiès Mbolo Thiès Mbolo. di ñaanal parce que lii yëpp lamb la. tey compétition la woon mais li Pape gagné Fallou Seck moo ko gagné. Euh, ki nga xam ne moom mooy nu Seck moo ko gagné. on est des familles comme ni ma ko waxee woon sànq lii. Euh, ñaax la rek. ñaax la rek te lii jàmm la. Hmm. ñi ngi ci plateau ñi ngi kaf ree sànnante xeer defe naa ni jàmm la day tax déwén. Ah. am na ku toogoon foofu ci plateau bi. waaw ah, bëgg xamul woon lan mooy. ngeen management. Hmm. mais keroog xam na ko bi mu jugee ci ci li nga xam ne mooy ngeen mu door lañ bët na ko ba ñu wax ko lan mooy li est-ce que déwén du ñëw baatare seen raccord moom wala déwén mu mu ngeen di insister naan est-ce que du bokk ci suñu biir. ah xam nga mbir la mu nga xamante ne yokkute la. Hmm. yokkute la tànki kanam rek la waxuma ci waxi mbër waaye ci lii may yëngu muy ménagement laa la uh-huh. ku ma ci bëgg a dëkk bay bëgg nga jóg suba teel ngay jóg bay ma ñu góorgóorlu ndax kafloo ci non dama ci dama ko fayewul fayewuma kafewuma ko réewuma ko métier mi moom laa bëgg moom laay def te damaa bëgg chaque année dama bëgg foofu ñuy yëg maa fay taxaw xanaa ñu ñëw di ma gunge. keroog ni nga solo sax. daa mel daa mel ni yow da fi mu maa nga dem naa dakaar comment lu mu gàtt gàtt nii am naa fa quatre quatre combats xaw ma cinq. quatre yi moom ci année deux mille vingt quatre te commencé ma de. yow ñaata contrat Ousseynou am na benn Ousseynou am na benn lay wax ni toppandoo baax baax la Ousseynou commencé na dem na Dakar. waaw ah, Ousseynou la Dakar de. waaw d'accord mais bu ko bu daa am benn combat daa xëy uti contrat Dakar moom day day sànni faale xeer. non non Ousseynou maa ngi koy nuyu au passage moom it. am na combat mu koy ñaanal nag yàlla na am. dara kañ la le 27. non bi commencé na mais moom benn la am man am naa carte. dinaa dinaa mais xëy na balaa ngay. parce que moom sama rakk ndax dama bëgg. maanaam yaa koy yaa koy paas. waaw dama koy paas. moo la dalaloon mais léegi yaa koy paas moo ko paas. bu ko defee mooy dem gisoo keroog bu ñëwee dafa soosal xale bi dama bëgg. mais <laughs> aussi damaa ñëw soo dal ma ci kaw kaw bu ñëw sama xol bi dafa seet ndax barke yonente bi loolu rek la bëggoon ci bu bu maanaam bu draay yi jeexee. Mm-hmm. bu paasee xarfal rafet loolu mooy avancé dafa yéene la am ci man barke Cheikhul Khadim nee naa la moo ma njëkk a accrédité dugal ma équilibre sama. ndeysaan ndeysaan. xoolal mën naa la ne xoolal di ma accompagner ñuy àndandoo di dem yàlla nag mooy def loolu ci doomu mm-hmm. nit dina jàngal nit ab ab professeur professeur yi nga gis fi ñu jàngal eh, eh, jomanaa yi. ak keneen ak keneen. koo koo bind recours borom bolok bu noir. waaw donc vraiment bind recours. vraiment Pape déwén. Uh-huh. ngemb door bi di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu ci yóbbu ak jàmm. yàlla ci loo defoon ren. bu déwénee na nga def ko. bu bu waxtaan ak yooyu jeexee mais yàlla na yeneen ménages yi ci des. yàlla na yàlla sama borom jàppale ba kenn ku ci ne ñu dem ba redoubler sax effort li ma fi defoon. ci at sañoon déwén billaahi wallaahi wa donte que maa ngi ñafe mais nit dina ma raw jiitu ma topp ci am na solo doyen combat yi daan ja jafee taxawal. est-ce xale yi duñ course pour ëppale ay combat ak ay ndam pour nekk ci kanam tam est-ce que est-ce que est ngemb door bi yombalul lu bëri ci côté boobu. ah bien sûr mais mi ngi doon gën a yombee nag ci Pape mooy ñu amoon terrain. non loolu ñu ngi ciy rafet njortu moom. waaw am terrain bi comme comme euh, le promoteur de la cité mhm. te ku ne xam na ni Kayar. ci Cees na bokk nag Cees la bokk. <laughs> ba tey génn guddi raison bi de te yeneen i dëkk ngi fi na mu defoon Daaru Xuddoos. su fa mhm. jógee mën na dem Mboro. Mhm. te xale yi Cees yi nañu góorgóorlu te xam ne ñoom ñooy ànd ak Sidi Jaxate buy génn fu muy demit ñoom lay yóbbaale. Mhm. am na ay xale yu ne ci biir yu bokk ci journée yi war a dem. waaw ñooñu dèjà commencé nañoo marqué wu. di nga gis ñu def kayaar gee loo xam ni du du bari luñ ko doon def ci ngir bëgg bu déwénee bu nuy wax ñu bokk ci. loolu man Pape Maal ci dem gii ñuy dem Kayar ñi ci bokk di nga gis ñu wane fa seen bopp pour déwén suñu dikkee eh, bu ñu yëf ngeen mu ñoom ñu bokk di loolu man Pape Maal ko kon rawatina nag yeneen journée yi nga xamante ni mu ngi koy waaj ak yeneen i promoteur kon defe naa ne ngeen mu door déwén bay ko ñu xam ne nag dèjà présent commencé na télévision bi lay démarré. daaw ñaata licence nga signé Dakar. Euh, xam naa ni euh, ci gàttal. daa bëri ba mënoo koo compter quoi. non pas bëri ba ñu mën ko mënuñu ko compter sax mais lu mu gàtt gàtt wax dëgg def naa quinze sorties. Dakar. biir Dakar ci boppam bu ñu ma ci boolewul Tëngéej. non Tëngéej jëg yëpp. boole ci nga génn Tëngéej ñaari sorties laa fa def. def nga Tëngéej ñaari sorties. boo jaxaw je crois que yaa ko signé ci kalaaf. waaw muy sama doom da koy ñaanal nag di ko di lancer appel ci Makan Mbengue. Makan Mbeng ak Abdou Lahad sama jarbaat ñoo tëgg booy jaxaaw daaw ci kalaaf ginnaaw bu ko Ablaye Jaxate tëggee muy le promoteur bi nga xamante ne ndeysaan mi ngi dëkk fii ci jandeer di xale bu baax moom it di ko xam moom tam di waajal yàlla na réussite am ci bisam booba général Malika Jamtéri di bis boo xam ne bisu ceesuwaay la ndax tax muy bisu ceesuwaay non am mbër ba pare am ci promoteur macha allah kii bëre grand doomu raison de Thiès doomu raison di koo xam ni eh, ci ñun dafa am fu mu ñu toll ki koy tëgg doon doomi raison. doomu raison de Thiès. kon defe naa ne bis boobu bisu. am ci ñaari combat espoir yoo xam ne ay doomu Thiès. waaw muy laay ak ki nga xamante ne mooy yaroo baax. kon ngeen ah. commencé bu ngeen wax course course bi ndax laay Pythagore da nga xam ne su déwénit ci euh, gémb door yi nga xam ne organisé laay Pythagore fii la bokk. fii la bokk parce que moo ñëw ci combat de l'année. est-ce que dinañ. bi nga xamante ne fa la licence am ne. ci CRG de lutte bu Thiès bi fi la ñuy fi la fi la am na solo. donc loolu lañ ci bàyyi xel muy loo ma xamante ne wax dëgg yàlla Pape am naa yaakaar ni dëgg Pape Doumbouya bu koy organiser ak ñeneen partenaires yi nga xam ne ñoom la ciy àndal. Mhm. parce que nag nañu bàyyi xel ni ñoom door bi ñu organiser déwén ñaan nañu yàlla mu yaatu yaatu boo xam ne. dina am ñeneen ñu ñëw teg loxo Pape yaa jàppale ko ci ba mu gën a. mais liggéey bi ci war a am bu ci amee est-ce que dina xajati Sams Presse. déedéet promenade Thiès waat lañ jëm bay ba Babacar Diop utal ñu fa place mu maa la ko wax. écran géant bee nañu fexe ñu taalal ñu ko yóbbuñu promenade ba foofaay sunu place xaw ma dina changé tudd ci diggante bi nag ba du tudd promenade am ndax maa ngi koy maa ngi koy dégg. waaye buy am daal foofu foofu lañ koy defee ci kàttan yàlla. moom est-ce que amu ci part responsabilité. da ciy non loolu kenn waxu parce que euh, maire la boo xam ne aussi nag ah ñun waa làmb am na lu waxanteeg ñun te am nañ ci yaakaar ndax ba tey mi ngi renouveler confiance boobu ba barki démb ci ngemb door bi yabal na fa ba dara jaay ni ko teewal ma fa waa làmb. gis nañ ko. bu ngeen demee nii leen budget bi nga xamante ni moom laa fa teewoon pour ñoom dara du ko changé. daa toll ni dañoo nekkoon ci final coupe du mais suñu weesoo ci lii la jublu kon defe naa ne bu déwénee mooy dina ci am pàcc boo xam bu Pape am loo xam ne dañ ko koy sas moom man Pape su ma ko waxee ñu bari war nañoo xam ne li may wax am naa fu ma ko teg te dinañ ko def. macha allah kooku moom mooy la doyen Pambay ginnaaw waxtaan wu yaatu weeg fi nga jaar ak euh, ngemb door bi lan la mën a yokk ci làmbu Thiès keroog nga ñëw ci cérémonie bi. ñu rappel ñetti ñetti ñetti ménagères ñu hmm. ñu jël raaya gi takkal la keroog yëg-yëg mën nga am ak coono bi nga yàgg sonn ci biir làmb yëpp. kontaan mais sante ko yàlla comme ni ma waxoon rek delloowaat leen ko ñoom ñëpp ndax du dema leen a man du dema leen a dàq li may def du dema leen a ëppale dara mais yàlla mooy jël ab cër di joxe mooy xool lu ko neex mu yëkkati ko jox ko nit mooy jiital nit it nag kon keroog man la tànn ni maa war a nekk loolu mais nag bi ma ko defee ba pare am naa ci yëg-yëg kontaante mais ñoom ñi ma àndaloon kenn ku ci ne ci sa biir xol xam naa ni yéene nga ma li ma def moo tax ma nit ma amaat xol jëlaat lépp tegaat ko ci seen loxo keroog daal wax dëgg yàlla Pape sama mbégte comme ni ma ko waxee woon mënu ma ko woon mesurer fan la xam naa fi mu commencé mais mënu ma woon a xam fu mu très sincèrement ndax samay mbokk gunge nañ ma samay am di jàmm gunge samay nit ànd ak man ma ci remercier ku mel ni Basirou Seye ménager la comme ñun wax dëgg yàlla yëkkati otoom mettre ko ci samay disposition bàyyi ma 4 bi nga dugal. non man dugguma ci 4-4 bi sax ndax. 4-4 bi la soxna yi laa ko jox ñoom xadi. xadi leen ñu ko ñëw au passé xadi keroog dafa dafa defaru ba garaaw nag yow xaaral nga ko waxoon yaa jël si affaire da doon saaj yi. waaw maa ko wax. yow Pape da ngaa zibilé doo xanaa gisoo Fama. yow du xa du xadi kese xadi ak doomu ndeyam Fama njaay lépp lu ñu ma mus a defal ci làmb ñoom ñaar ngay gis ci sama ginnaaw keroog lenn rek laa ci am bu ma amee lu ma ci lu ma ci xam la la bi ménage yi pare dañoo war na wàcc ñu indi yégalal ma xadi ak faama ñu taxaw. ah ci kaw loolu donc laa manqué. non si yow da ngaa bëgg non déggoo ma la wax defal cër bu defal ci làmb te lu ñu may defal ci làmb tant que maa ngi koy fekkee ñoom ñaar ñoo may kii na ci sama ndeyoo kii na ci sama ah waaye ndax xam nga lu ko waral. Ah. Euh, kii yor Faama Ndiaye day sama rak di sama xarit te Faama Ndiaye xarit di ay xarit ci benn bakkan kon ñun noonu la ñuy ànd moo tax lépp lu may def lépp lu may defal faama buñ doon décerné Momadou Seck borom këram bi ma décerné ci benn bis faama mën nay am loolu yàlla su borom am na solo ñuy ñaan yàlla na ma ko ko waxee woon rek lépp lu muy togg moom it ca biir ëtt boobee ëttu cekkeen yàlla ko yàlla sama borom jàppale ba lu mu fay ut rek yàlla su borom may ko ni ma ko ko ñaanale laa ko ñaanale xarit yi ay jigéen la ñoo xam ne xale yu baax lañu ñu ñàpp jàppale seen i borom kër lañu ñu jàmbaare kon yàlla na yàlla defal jàmm defal ko seenu njaboot maa ngi ci profité di nuyuwaale mama ah mama Mbaye suma doom ñoom Anta Pape Moussa Abdou Jali ak Modou Wade sama njaboot bi nga xam ne keroog ñoom ñëpp a ah, jóg ak man ànd ak ah, Fama ànd ak Xaadim ñëw doon sama délégation ba ci Modou Kara gis nga ko ak jàpp bi ñu ñëwee dañoo dañ ñëw pour ñu place ñoo ñëw bokk xam ne bañ sama njaboot dañoo. yow yaay Sénégal yaay yaay waaw kon kon man damay wax ni làmb desee latuma dara ci man maa deseel waa cees man maa leen deseel te li ma leen deseel xam nga mooy lan mooy fexe ba lu amul Thiès ci làmb am fi te buy am yàlla bu ci sama loxo génn. yaa ngi làmb Thiès ba indi roi des arènes Thiès. xam nga maag làmbi Thiès ba ci jël sama rakk yóbbu ko mu voyagé ci lu jafe woon bala maa am jàmm ku mel ni booy jaxaaw mii daa tukki. incha allah loolu man bokk na ci samay reer bokk na ci li may mépp ndax. day sama doom ah bàyyoo ma man tama doomoo ko du hasard dafa bëri am Pape mbay ñàkk am ay problème xalaat ci kenn nit woo ma mi ngi dégg ni ma sa doom ci parce yonent yàlla Muhammad day nee na day bàyyi làmb ndax defet am ay jafe-jafe maa ko woo téléphone wax ko la ma koy wax ca ngoon sama mu dem entraînement heure bii népp la ma ko woo ne ma xanaa da koo jot téléphone ma ne ko waaw mu ni ma ñëwoon loolu cër la ma koy ñaanal yéen ju ma amoon ci samay rak noonu laa ko amee tey jii ci keledoor mi ma yor amee ko ci booy gën ak ñeneen mais booy jaxawee seen mag ci man tey jii dama am yéene boo xam ne am naa ko ci moom te bala maa nelaw nelaw yu nekk damaa ci yàlla jàppale la dama ko ñaanal ci sa papa mu réussir yàlla na ma ci ci ñeneen ñi des ci sama loxo ba li ma macha allah am na solo yàlla na yàlla mootal yéene moom bu bu bu baaxee rek suñu borom tekki loxo. Mm-hmm. yéene bu bon la suñu borom di tàggatémbeel mais yéene bu baax moom nit bu amee sabab bu rafet rek suñu borom da ciy teg loxo. Mm-hmm. te gëm nañ ni yàlla dina mottali. Ah, incha allah am naa bi nga am ci moom ak ay moroomam ak rakkam yëpp yàlla na ko yàlla mottali. Mm-hmm. yàggal la aussi ci kanamu waa làmb yëpp. parce que taxawaay bi rafet na car macha allah mais ci lëkkaloo bi ci diggante CDC ak. Pape Doumbouya bi nga xamante ne nii ñëw na. Mm-hmm. lëkkaloo gi ba yombalal ko Doumbouya ba nga xam ne moom daanaka financièrement la def mais organisation bi keroog ni mu demee ci kaw. jekk na kaar macha loolu defe naa ni yokkute la ci làmbu Thiès collaboration boobu est-ce que mën nañ xaar mu continuer ba saison bi ñu jëm. bien sûr bu bu jaaree ci aw yoon rek gis nga boo demee di kër da ngay jaar. gis nga buntu CRG ak CDG jarul nëbb ak wër-wër loo ko def boo ci bëggee am loo xamante ne ci wàllu organisation looy dox bu sotti la wóolu Mamadou Seck nga boole ko ca wala nga jiital ko man li may wax nëbbuma ko du lu may làq-làqal bari na lu nit di organiser fii ñaare mu échec da nga ko dénk ko ko mënul Mamadou organisation yëfam la kenn ku ci ne ak cër bi la yàlla suñu borom def defal man mii lu ma bëgg la bokk bu ma woowee dama cay bokk kaneen ak kaneen ak kaneen muy CNG CDG tey ji ku mu ñëw ne ne lii la ñu organisé lu mu tax ñun ñëpp dañuy jóg ànd ak doo topp ci ginnaawam rawatina jëmm ju mel ni Aboubacry Dramé. Dramé mention spéciale. dafa am ay nit ñoo xamante ne du ma la ko nëbb loo bëgg a organiser ci Thiès rawatina ci wàllu làmb. mais nag suñu ca bokkee nekk ca kanam ñu bari nañ ca sax. mais nag ci kaw la ngay organiser nekk njariñu làmb. waaw foofu laay waxee xam nga am na ko waxuma la kuy def di ko organiser ay tànn biir làmb. non ci biir làmb parfois nga gis ku ni day organiser te la muy organiser. boo ko toppee damay bañ maanaam am pambe ngi ni bëreet ni da leen ni pour organisation. ah la la tax a jug intérêt personnel la wala du intérêt làmb boo ko leeralee moo tax ca laa jëm ku woo ci lu luy jariñ làmb. loo xam ne intérêt làmb bi Cees la jaral na leen ay coono xamal ni moom la seen organisation bi ni mu ci daj. coono bi mu ci bu du lu ñu koy fay. kenn fayu ko ko. juróomi dërëm jëlewu ko ci. wallaahi xëy bàyyi léppam ay fan. bi ñu ko commencé bi ñu demee ba affaire bi jub si dafa lëkkatu dans. dans deux semaines kay yoo xam programme bi nga xam ne moom lañ tëral ba mu ëcc bi ba déposé loolu ñu jox ko ab dumbu yaa ba mu koy def kenn jox ko ñatt la. wallaahi moo jël alalam def ci. moo tax ma ne la dafa am ñoo xamante ne boo bëggee réussir ci dara ci làmb loo fi organisé bëgg ko jaar yoon du du du publicité du dara. am na njëriñ ko waxuma lu néewul ci moom. Ah. keneen ku ko fi teggi jaar faneen am na ñoo xam ne boobu pour nga jot ci ñoom bi yow. néew ma nag kuy def lu la dawal ut si ko ndax bëgguma dem ngeen dem ba jël lépp wékk ko ba ay liggéeyam du ko mën a def mais dama ne am na loo xam ne bu dee dalaa tax a jóg te jariñu doo ko tax maa lay cité fii ñoo xam ne boo leen cité waxtaan ak ñoom jëlal Mamadou Seck jël ko mel ni Daraame Assane Fall boo waxtaan ak ñoom lu jëm ci CRD CDC Thierno loo fi bëgg a organiser ci làmb bu dee lu jub bu la ko jàppalee loo ci bëgg ci réussite ko mais inspecteur dañ koy jaajafal waaw mu nekk kilifa nga gi ngànk sport fii. mais ñu gis mu ñëw assister cérémonie bi ba mu tas. Mhm. loolu tamit nekk acte bu nga xam ne bu rafet la. ñu koy jaajëfal mooy pieux. dégg ko ko bi mu ñëwee. làmb ko dalal. moo tax ay man maanaam ñëw làmb la jël def leen famille am dafoo mooy inspecteur départemental bi di nit ku baax. koo nga xamante mooy lima ma la wax daa ñëw lëkkaloo ak ku mel ni Mamadou Seck Thierno Ndiaye Maysa Pouy Aboubacry Dramé ak waa CDG bi yëpp ànd ak waa CRG boo demee mook Assane ak ñun noonu la ñu mel loolu bi mu ñëwee ba mbéy làmb di organiser mu ñëw teg moo tax yaakaar na ni moom lu nit organiser lu làmb sax leen moom macha moo tax moom wax dëgg yàlla ci sunu ci ñun la bokk ci ñun la bokk boo gisee daaw ñu initié woon pour CDG bi euh, lutte simple développé bi Thierno Ndiaye am initiative boobu moom mii moo ko ci doole. macha allah muy nit koo xam ne ñu koy nuy def passage wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ci dëkk bi yàggul mais gis nañ liggéeyam gis nañ njariñam gis nañ taxawaayam muy ñaari inspecteurs yëpp la même inspecteur régional de sport bi gis nañ ko keroog ci bi CRG di organiser euh, seen réunion d' information vraiment mu taxaw fa taxawaay bu rafet yëkkati fa kàddu yoo xam ne wax dëgg yàlla ñi daawul toog ak moom ci xamuñu ko sax biñ ko déggee biñ génnee keroog naw nañ ko. kon ñun inspecteurs yi nga xam ne moom lañ ñu tànnal ëllëg ñu leen di wax dëgg yàlla de inspecteur bu ne jaar na waaye ñoom de am nañ ñoom yaakaar te it fi ñu jëm ak làmb ñun yaakaar nañ nañ taxaw ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am nga foo foo tollu làmb ak noo ko bëggee ak noo ci fas yéene kon ñu leen di ñaanal suñu yitte benn la suñu soxla benn la xam nañ ko xëy na dinañ ci egg ci émission bi mais nañ ñu ci taxawal ngir làmbi Thiès am encore wér-gu-yaram gi mayu ko ko mais ñu gis mu assisté moom it suñu papa Amène Ndiaye doyen yi nga xamante ne nii bokk nañ ci ñi yokk garaate làmbi Thiès keroog ñu gis ñu assisté ba mu tas muy acte bu nga xamante ne nii euh, marqué na xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci làmb tax na aussi xale yi fas yéene gën a defar seen toogaay ci année yi ñu jëm xam ne mag ñooñu ñu ngi leen di bàyyi xel. ba ci vieux Malick Ndiaye ay mag ñoo xam ne seen wér-gu-yaram mayeetu leen ko et mais ñu ñëw assister cérémonie bi ba mu jeex. Habibou euh, bul fàtte ni moo dem ba doyal woo gouverneur bi ko joxoon ni ko li nga ma dénkoon dey sama jot mayeetuma ko samay at mayeetuma ko damaa bëgg nga ut kooku dénk. kon nga xam ni kooku ah, wax dëgg yàlla nit amuñu fayam ci ñun waa Thiès mu am fu mu ñu féete ba tey jii tey daa nekkatul président mais loxoom jógul ci làmb jëfam jógul ci làmb tey la gën a nekk ci biir làmb ak at yi mu am ñun Abibu dañuy ñaan rek mu gudd fan. ndax wax dëgg yàlla kilifa la goo xam ni njariñ rek la ci suñu biir Baye Ahmed nag moom moom dama ko limaale gis nga ko tey fu instructeur si di jaxate egg tey. ba tax ñu koy tudd rek mun naa ne loxo Pa Ahmed Ndiaye moom ci la bokk tey jii fu R100 euh, ADLT gi ngay dégg muy R100 Pape Mbaye mii tey yoonu làmb mu demee tey jii ba ñu koy décerner yenn di ko tudd yàlla ak Baye Ahmed Ndiaye moom moo tax. kon xale yi ñoo war a xoolaat ci mag ñi nga xamante ni bañ nee ci làmb juddu wuñu Baye Ahmed bi bu leen fàtte nekkoon na président wu CRG su demee tey ba boobu ba léegi mu ñëwaat toppaat ci ginnaw ba tey bàyyiwul dëgg yàlla man de mag ñooñu bokk nañ ci ñi ma ci gën a bàyyi. bokk nañ ci ñi tax man yéene juun amoon ci làmb jee fu ñu ko waroon a yóbbu te eggu man fas naa yéene porté ko te dinaa ko incha allah loolu man maay engagé te engagé woon naa la. macha allah bu ma ñaanalee. barke ci làmb rek naa li ñu ngi ci cëppaandaw ma waxtaan weeg saison ren bi sa ban combat moo ci gën a compliqué ba doo ko fàtte ci ci ci ci sa carrière ci année bii nii nga xam ne ci lañ la nominé mais. liggéey boo gis njom jàmbaar da ciy ne. ak lànk bañ a bàyyi ban combat mooy bu nga xam ne doo ko fàtte ci saison 2023 2024. mooy suñu dernier journée. Daaru Xuddoos Mbour. caatu ama Ziggy Marley. ko ama ak Ziggy. mais combat bi ëpp coow ci man wàllu làmb mooy combat bi nga xam ne bu doon pression donc mooy tax nit di bàyyi làmb ma bàyyi làmb mais mooy combat bi ma gën a motivé ci sama carrière làmb ndax man nit laa ko xam ne naa nitu défi la ndax Ziggy Marley wax naa ko ci biir histoire ak mbokk moo ko indi ci man mais tey carrière làmbam fu mu egg du Seck bi ma lay wax def ci bokk moo ko njëkk wutal licence bari na fi daanaan yu bari nga leen di dégg buñ leen di dégg ci làmb tey moo tax sama rakk jooju li may wax ci moom pareegul de bari na mbëri yu fi dégg tey fu nu jaar tey ji buñ seen licence moom moo tax bari na ay ménageurs yoo xam tey ji suñu demee ba leen di tudd tey ci ay management moom moo tax moo ko moo moo ko njëkk indi bi muy bëri ak menace bu ngay xoox écrit Samba Diaw la nekkoon maanaam pour rappeler dañu ñëw Saalum si di jaxate diggéen ñoom mbisaan bëgg a bëri ak moom ñu bokk même écrit xam nga nit ñi des fois di leeral daf ciy baax ñu bokk même écrit muy Samba Diaw ma ne leen mënu leen bëri parce que benn écrit ñaari mbër mënu ñëw bokk benn licence benn écrit di bëri mu ne moom dafa bëgg bëri moom bisaan moom bisaan léegi nag pour ngeen bëree lii rek moom moo leen moo mën a bëri loolu mooy kenn ki day démissionné dem ci beneen écrit pour yéen ñaar seen combat mën a nekk Yékini ni pare na pour démissionné ñëw ci moom ndax boobu fekk na mbokk judd suñu diggante ndax xam ne diggante Daaru Ndoy ak Fass Boy mooy fi ngay jàpp fa la sama papa juddu man foofu laa dëkk ak mbokk juddu mais mu nekk fi ma nekk fa mu nekk ak ak ci man benn la mais bi loolu juddoo man ma récupéré ko indi ko nag isam ndax comme sama doom loolu moo indi zigi eh, ñëw écrit bëgg si waaji mais bu dul woon loolu du jóge jaxaaw ndax jaxaaw ak écrit bëgg si waaji benn lañ ci man ndax dañ ma accrédité ci bëgg sa waaji ba pare accrédité ma jaxaaw cër bi ma am bëgg sa waaji moom laa am écrit jaxaaw kon ñaari écrit yooyu benn lañ ci man mais transfert boobu li ko sabab lii doom leeral boobu mu leer ci bopp nit ñi mooy sababu jóge gump bi mu ñëwee nag ci la ci laa ci la ci la ci laa jëlee licence am doo koy gunge ci làmb ba tey muy bëri ay grand combat vraiment dina baax fii ma ko leere rek fi la fi la fi la fi la war a leere fi la ma neexee parce que mooy télé bi nga xamante ne fi la njëkk a defee sortie ginnaaw bu ma amee ndam ndax mooy sama télé. fii sa télé fii non mooy sama télé. nee naa la fi jiitu yaa fi ne ma léegi ku ma dégg ci télévision wala nga xam ma RTT TV tax bu fàttali la fal nag booy folee ko dalay bett man loolu ñaanu ko yas yàlla tale bi maa ngi moom ba abadan ba abadan aabi diina tànk Mamadou Seck ngi koy yor mhm. maa ngi moom lay doon te xam naa ne kenn mënu koo jël ci loxoom loolu moom xala ndax fi mu ko jële ba fi mu ko yóbbu dinañ dem ba yóbbu ko national incha allah ci kàttan yàlla ak mbaax man bu ma eggee yeneen te li yëpp ndax man a problème moom mooy sa mbaax mooy sa am na solo doyen. Mm-hmm. lan mooy kàddu gi nga xam ne moom ngay ñaaxe xale yi laataa ñuy briefing parce que du ñu du ñu du ñu ñëw ba tëj te ñëwaloo ñu ci pronostic ci diggante général Malika Diamtéry diggante Mbissane Dione ak ki nga xamante ne nii moom mooy Ousmane Gandigal bii nekk la 3 bii nekk la 10 bii doomu Thiès tëgg ko beneen bi doomu cees tëgg ko. Mm-hmm. bii nekk arène nationale bii nekk Kayar mais balaa ñuy ñëw ci loolu alors da ngemb door. Mm-hmm. yan ñaax nga ciy ñaax ku nga xam ne rek. am nga part responsabilité pour bu jëm ci biir ak naka lañ ko war a téyee pour déwén. waaw bi ñu ko bi ma ci njëkk a wax mooy dañu am kilifa. boo xam ni wax dëgg yàlla ñun waa Thiès suñu sac la war a doon dañoo war sax ñun. organiser loo xam ne pour di ko saggal lay doon xam nga mooy kan. Mhm. mooy directeur technique national. Khalifa Khalifa Sow Khalifa Sow macha allah ñu ngi koy nuyu au tey ñoom drame yi ngay gis yépp moo leen formé. di kilifa boo xam ne ñun dañoo yor loo xam ne ñun waa Thiès boo demee Ndakaaru tey làmb boo ca génne woon Thiès ni ma doon ma ko waxee woon ni roi des arènes nii boo tànnoon li ci Thiès jël ñi ci des buñ ko doon séddoo kenn day laal dara ca màngal de ca yax yi jub Yékini mhm. ñaari yoon ba ci Modou Lo tey liquidation de Thiès daf ñeenti roi des arènes am nañ ko. juróom Bombardier ñaari fois. <laughs> Pampele. Yaxya Diop kon moo delloo cinq. boo nee tey CNG. Khalifa mooy directeur technique ba il est de Thiès. Mm-hmm. premier vice président lutte avec frappe kan la. Maysa Ndiaye uh-huh. lutte simple deuxième vice président lutte simple kan la Manga de. Manga ay làmb. <laughs> macha na xarit. am na solo moo tax nee naa la Cees ci man lañu gis ci lañ ci lañ mujjee gisee manager bu génn dem ñu koy tudd ana ana ana ñoo ña ca des. xanaa ñoom dañoo bàyyi seen xel ci loolu yow coow li nga àndal yow da ngay boxing de. yow da ngay xeex yaa ngi dégg donc kon Pape xale yi la ñu gën a góorgóorluwaat te xam ne nitu Cees mu sa des ndaare ci dara. Mm-hmm. bu sonn de amul fu ñuy dem ca ñun ñu jox suñu cër. ñun ñii ci wàllu reportage yi ak management muy yow bi garaat cër bi ngeen am Dakaaru amoo leen ko Cees gi ngeen dëkk. dëgg la xaw ma yéen a ngi bàyyi xel ci li ma leen di wax am de man dama leen di gis ngeen di ànd ak yéen ngeen dem Dakar cër bi ñu leen di jox Modou Fall mii est-ce que xam nga cër ba mu am Dakar amu ko cër. yii Modou Fall président la Dakar. Modou Fall caméraman Thiès Média bi. association la fa jiite. reporter mi ngi noonu te pourtant fi jiite wu fi dara. aussi oh, booy xamuñu li muy représenté. mi ngi noonu xamuñu sax cëram ak gëddaam. parce que ci kon Pape nañu defaraat toogaay yi. yéeneente jàmm. am na solo gën a jàppalante man tey damay wax ni bu ma yàlla naree nattu ma nar a xeexee làmb yàlla na ma ci yàlla génne ndax li ma làmb defal dama cee fekk samay baay ci métier bi muy métier management bi ku ci mel ni Baye Ahmed. Mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen. te tey suñu demee ba di ma ci tudd te ñoom ñu ne fi wala ma ci am loo xam ne amuñu ko ci kon man su ma dee góor dama ko war a sant yàlla. mais waruma cee def lenn loo nga xamante lu ñu may xeeb wax dëgg bu fekkee gore naa nag laa wax. am na solo dimension bi ma ñëwaatee ci làmb ak bi ma tollu Pape. Euh. su ma goree. làmb lu ma defal ma damaa war a wëlbatiku di ko sant yàlla suñu borom. ndax sama njàpp. macha allah am na solo doyen mel ni ñu am ci waxtu mi ngi ñuy xoj. Hmm. ñu jëm bis bu nga xamante ni le 3 novembre la général Malika jóge ci fils de Balla am si défaite mu nekkoon combat examen mu am ci défaite de retour. digganteem ak ki nga xamante ne ni moom mooy Bour Sine gisoon nañ ko amul wun bët gàng décision arbitrale la jeexee làmbam jengoon mhm. jam tarix bëreeg Ahmed Deme jóge ci jàndi daan ko 2019 toog 3 ans bëriwul ñëw 23 juillet digganteem ak ki nga xam mooy Ahmed Deme moom it décision arbitrale la amee ndam gis jam bu sooxe keroog mhm. général Malika nekk ci mbapat nekk ci ci dimension bu nga xamante ni jéggi na day sut ko rallonge am poids mën a bëre comme jamteeri ñeme comme jamteeri combat boobu boo boo ñu ciy faram fàcceel weccetu combat boobu lan lañ ci mën a xaar le 3 novembre doomu région de Thiès aussi tëgg ko muy Ablaye Diakhaté ñu koy ñaanal réussite totale ci bis mën nañ ci pronostiquer Pape c'est parce que gis nañu jàmm bu yàggul. gis naa jàmm boo xam ne li ma gis ci moom su fekkente ni dëgg la ah dinañ bëre làmb ju neex mais nag leen rek laa koy conseillé mooy na bàyyi xel ni ci carrière combat bu amee danger nii ci carrière bu bëriwul lu ko bëri. est-ce que mos na ko bëri. est-ce ko bëri bu am danger bu toll nii parce que man dama jàpp ni jam euh, du général Malika moo war a nekk adversaire. absolument kon su demee tey ba jël ko danger ba ci moom la ëppee. général Malika jëm jëri daan na ko. yàqul dara non du maanaam du gàcce. yàqul dara si yoonam. te te te pourtant jëm jëri général Malika mën na ko daal da koy bu ko daanee da koy gaaree. man te mën na mën naa nekk. yàlla bu mu am nag ndax wax dëgg ñu doomi Cees lañu bëgguma ko mais nag bu ñuy wax laa wax dama ni mën na nekk. la est-ce xam nga ne général bu daanul jamteeli li muy wër ci làmb du ci am dara. moo tax ma ne la Ablaye Jaxate de tëgg na combat boo xam ne est-ce que xam na dayo combat bi mu tëgg. dayo combat bi yaakaar naa ne dimension bi sax ñu bari ñu ngi koy dégg mais xamul mais jamteeli bi ma gis bi ma gis ci face à face am bii gëj naa koo gis te ba muy bëree cat li en tout cas dàgg na ci yaram moom. waaw gis naa ko bi muy bëri ak Ahmed Dem jamteer bi ma bi ma gis pare. Mhm. te moytul ma nag jamteer yi mu pare ci làmb bariwul góor bu ko mën a dékku nag. xeex ba bëri ba dama lu ma lay wax lu mel ni midi dama la ne bu dee avantage avantage jàppante ba. Mhm. mën na favoriser général Malick waaye bu dee ci wàllu xeex. est est-ce que jam ceeri li mu koy yan général Mbarika mën na koo dégg. Ah, waaw parce que jam ceeri pour nga daan ko di nga ñeme lool. da lool. di nga nangoo jël li nga nangoo encaissé. Ah, wallaahi te loolu gisuma ko ci mbër yi. te néew néew néewul ba sakkan na te doole ja mun naa ne seen diggante ñoom ñaar cinquante cinquante leen bu dee ci relance. Hmm. la nit di dute. Hmm. ci la ñuy wax waaye bu dee ci xeex jam moo ko ëppale. bu dee wéccatu bëre. général Malika li ñuy bëri bi ne ci mbapat ak bëri dóor bokkuñ li jëm ci di wane ci xeetu bëri ci bëri dóor eh, général Malika waneeku ko. doyen loolu foofu lañ cee teg baaram liy duuf ci nag bi du xaj ci cin bi ñu ñëw ci combat bu nga xamante ne nii expérience face à la jeunesse 12 juin mille 2021 la fi Ousmane Gandigal ji gëj ci digganteem ak Boy Jaxaw enregistré ci defee diggante bi mu dem amaat ci ñaari ndab Euh, troisième combat am digganteem ak ki nga xamante moom mooy ordinateur mu perte ko décision arbitrale mais ci diggante bi xale Tivaouane bi muy l'enfant série de Tivaouane tegale fi six victoire ak benn match nul. Hmm. mu nekk combat expérience face à la jeunesse Ousmane bëgg a marqué retour xale bi sote yi tëb si fekk si gars yi ci palier bëgg faa samp. Hmm. combat boobu lan nga ñu ci jox. combat bu compliqué xam nga tax ma la combat bu compliqué Ousmane Gandigal. damay wax ni kooyi bukki la du njawaanu tef eh, dama wax lu leer laa lay wax mbisaar bu ma ko yebee di ko indi ci làmb ji bu ma ko doon yeb ko indiloo nan lay def ba jàppante Ousmane Gandigal rek mooy avantage mbisaan loolu lay bëre sax waaw yaa ngi dégg kooraa koor ak Ousmane Gandigal lu ne mën na ko caafe bu Ousmane Gandigal ñëwee lu leer nag laa Ousmane Gandigal seetaan nañ ko ak Turbo. Laay Gote Alaaji Gaynde Ousmane Gandigal seetaan nañ ko ak Laay Gote. dara seetaan nañ ko ak ay dara mu mat si nit. seetaan nañ ko ak Aline Bay Ndeer Ousmane Gandigal toog na fukki at ak ñaar ci dëkk bi ginnaawam laa fi suuf reer bu nekk ëpp na ko waaye nag garab ci kaw lay fekkante nag ca mbër mu mag moo gis mbër mu ndaw a koy génn ci làmb ku noonu booy jaxaaw ni la koy def fii kenn du ko gëm. Mm-hmm. kon bisaan jon am na atu yu daan Ousmane Gane Dia waaye bay boo lu mu am na ko liggéey ak bu ci xaarul combat bu xotteeku est-ce que mënu ci am déedéet moom moom bu dee calculer dara ci Ousmane Gane Dia du ko daan moom kay day ñëw mën a nangoo encaissé ku Ousmane Gane Dia pour jàpp moo ko ca mën a may dara ndax bu dee ci wàllu xeex Ousmane a ci man foofu est-ce que du am tuuti lu compliqué parce que xeex mbañum bisaan la ci biir bëre duñ ko gis muy xeex samp jaaga day yoote ndengeñ sax jàpp. li ma li ma la bëgg a wax de mooy dama ne nii faaw mu encaissé ko Ousmane Gall a génne. mais en tout cas bëre bi foo ko natt passé na ko prise dafa assuré moom bisaan. waaw mën na yoote mais saa bu capté ci prise bëre ba. waaw moo tax ma ne mais fan si moo tax ma ne bu jàppee mën naa am dara ndax moom wax dëgg yàlla góor bu am poids bi mu am ak li mu def ci làmb ak ndam yi mu am su demee ba sëqante ci génn am ci mën naa am lu ne ci làmb. Ousmane wuy si mbisaan si mbappat est que dina ko jig. mais nag bu leen fàttali ni Ousmane Gana Gari pour nit humilier ko ci làmb yombul mu jàppanteeg rek ñuy humilier ko ci yombul en tout cas si xam nga pour ñu xóot ci pronostic bi dafay xaw a compliqué. dafay xaw a compliqué mais li may. ku nekk daf ci ay avantages mbisaan mbisaan avantage mooy bëri. Ousmane Gandigal nag avantage am ci kii mooy mu xeex ak xale doog a bëri mu xeex doog a bëri boo parce que ji amuñu lu ñuy nëbbal Ousmane ak lu ñuy nëbbal mbisaat ak leneen avantage Ousmane mooy moo dàq xeex xeexam a gën mbisaan mbisaan li gën ci moom mooy bëri moom contact ak contact ba os a jàppante ci de lu muy am ci làmb jël ci la koy amee mbisaan mënut a dóor Ousmane jërëjëf doyen en tant que coordonnateur production le dis novembre. lan ngeen di waaj fële ca Kayar. waaw mooy di ñaan yàlla suñu borom ñu egg ci ak jàmm tey ñaan ni mu ko daan réussir heure bu génnee yàlla ko yàlla sama borom defe noonu ndax nit la koo xam ne génn nag nekk ci biir dëkk bi la yemale ndax yàlla sunu borom may na ko ci wàllu organisation xam na ko man na ko te tàmm na ko te wax dëgg yàlla boole na ko équipe boo xam ni wax dëgg yàlla. Euh, li ñuy def xam nañ koo xam nañ fi ñu koy teg te xam nañ ni koy defee kon liñ ciy ñaan rek mooy réussite topp ci nañu mujje woon Daaru Xuddoos laa ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ ko ubbee ci Kayaar ndax defe naa ni ñu tëjee Daaru Xuddoos tey képp kuy seetaan wala képp ku bokk ci institut si di jaxate keroog bi ñu demee ba dix-neuf heures defe naa ne sa xol seetoon na yàlla nañ mbégte mun amoon nañ am bu raw te bu le fii nga xamante ni mooy Kayaar. di ca seen bay ñaar lay jaar. billet yi 2000 francs lay jar. waaw nag làmb defe naa ne ay billet ñetti téeméer ci ñaar téeméer nag mi ngi bëgg xew ci làmb ndax boo demee ba kase yu bëri fi mu toll wax dëgg yàlla ku sa mbër defal ñeenti téeméer defe naa ne nag dolli mi ngi bëgg a doy waar. billet yi 2000 francs lay jar. defe naa la semaine billet yi dina génn ci mbër yi ci ne face à face tamit ñu koy waa fee Kayar ci fan yi néew dina leen wax. Ah, fan lay doon ban local local lañ koy defee foofu Kayar. ah bu ko defee message bi nga jàll. di si ku ne xam ne ni RTT ah, mooy këram RTT TV mooy teleem mooy télé bi nga xam ne damay wax ni. ni ñuy jëlee ngemb door di ko def te euh, moom bu déwénee waroon nañ cee boole télé yi nag ndax bu fekkoon ku concours télé day am RTT TV mooy jël pay ci làmb. Ah, mooy mooy télé wàll. dama dama lay wax lu leer laa lay wax de. image boobu bu la leer ci Modou Fall mii ñuy wax nii fii lay copier si. Eh, eh, eh, fii lay ñëw di jëli image. dégg nga non fii lay jëli image. RTT mooy làmb. Thiès boo fi bëggee def làmb béy ba man maa ngi ci délégat mais booy def làmb demal RTT. ba cee génne RTT du du neex. ah fu la xorom si ne de xam nga déggoon naa ay Lamine Samba naan mburu mi xaw ma ba lay xoyam xoyam waaye RTT la fii la am na solo doyen lan ngay tàggatoo ak téléspectateurs yi ñu lay jaajëfal bu baax. bala maa tàggoo di nuyu sama fans yi nekk fii non. di ci jiital di ci daa. bi. ba barke yéen. non la bu kooku ah, ndaa kooku ndaanaan la. Ah, li ma bëgg a wax bu bu li ma doon wax naa bu coow li bare ñee ah. waaye bu jëf ji bare. bu coow li bëree ñoom daala ak ñoom bu jëf ji bëree Babacar bu jëf ji bëree ndeysaan ah ñu seetaankat xam nañ ci dara image image sama caméraman bi gis nga dafa moo gën a calme ci Sénégal kooka la Doudou Doudou Doudou nag Doudou c'est le meilleur Doudou ki maanaam c'est le meilleur léegi nag oh, ay xoo oh, ci man laa wax ginnaaw daa la non non non daa daa daa ci ginnaaw duudu ci kanam. Ah, xam nga nag. xarum waaye dañ la fay invité dañ la fay invité nag. da ngeen maa mais man daa laaj daa. ni muy doxee ci kër gi ànd ci noonu. bu ñëw di teg beneen classe man nag maa teg sama classe. daa ca ginnaaw la ne ci ginnaaw ma jóob jóob chauffeur ba sax dafa normal ba ko fiy tàgg. ma jóob jóob ma jóob jóob chauffeur bu mag. en tout daal maa ngi leen di nuyu yaa faatu du ma ko fàtte nguy faama laal lingeer ah ndeysaan Doudou moom ndeysaan maa ngi koy maa ngi moom moom sama waay waaw ah, Doudou da non non non kenn du moom Fata yim la dóor fee kenn ko mu saam ci àddina. non moo tax ma dégg moo tax ma boole ko. waay santal santal te gërëm doyen. waaw ah, di nuyu nag ah, suñu PDG. ah muy Mamadou Seck. di ko ñaanal bu baax a baax di ñaanal télé bi bu baax a baax di ñaanal di la sant yow Pape. comme ni ma koy waxee souvent mënuma fàtte caat ndax tey bari na image yoo xam ne tey ci làmb. Euh, ñu am ko di ko ndamoo di ko tiitaroo bokk na ci vraiment ci ñu ko def ci télé bi tey donc ba tey kër gi egsi fii di nuyu képp koo xam ne rek ko fi ne xaadim su ma rek fàtte wuñu la ndeysaan moom keroog noonu nañ ko jëlti mu am na lu mu war a wax ci làmb mm. xam naa dinañ ko invité benn bis ah gis te làmb xaadim taalibe dañ lay dañ lay <laughs> non non nee na bis bu ñu koy invité du ma ñëw nee na am na lu mu ci war a wax séré mari boo mënu ma ko fàtte Siré ah fi bëgg a bari ay fan. am nga fi ay fan. waaw ah, sa fan si am na ñoo xam ah, ne ah, luñ de. di la di la di la gërëm di wax ni émission bi wax dëgg yàlla am na solo te ñuy ñaan nag sponsor yi nag nañu ñëw. nañ ci sponsor yi nañ ci jàpp. parce que nag wax dëgg yàlla bokk na ci te te mujj a fee njëkk siiw. Mhm. bokk na ci. lu leer nag laa leen am na solo te nag mais boo xeliwul ñëw da ngay nekk ba mujj ngay xelu di ñëw. xaw ma yéen ak may déggam de xelu di ñëw mooy ngay daw di ñëw kon nag xelu leen ñëw bala ngeen a xelu di ñëw wasalaam. macha allah mbokk yi kooku moom mooy suñu doyen Pape Amary mbay nekk. coordonnateur Sidi Diakhaté production ñu bokk nekk foofu di liggéey liggéey bu am solo muy mag mu nga xamante ne nii mag mu baax la toujours luy jëmale am bu Cees kanam rek ci lay dox nekk manager en même temps tax ñu dalaloon ko tey ginnaaw ndomba tànk yi nga xamante nii jox nañ ko ko euh, mu nekk meilleur manager ci région de Thiès 2023 2024 ñu koy ñaanal grade yi yokk ba bu déwénee mu koy xëccoo ji fële ca Ndakaaru bàyyi ko ak xale yi nga xamante ne nii nàmputal na leen ci dëkk bi parce que it xol bi rafet na car allah liggéey bi mu ngi koy teg ci yoon te dëkk bi loolu la rafle ba pare doon jàmbaar fu fu fu affaire yi gën a kawee rek mu ni ci dimension boobu laa jëm te ni kaay leen ñu dem loolu aussi yombul ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax di la jaajëfal aussi ci disponibilité bi parce que bu la neexoo nit tey duñ la am ci palaato bi yombalal nga ñu ko ñu lay jaajëfal di la ñaanal jàmm xéewal sutura ak tawféex di ñaanal sa soxna bu baax a baax muy xaj ndiir ak faama Ndiaye mi nga xamante ne ni ñoom ñoo la daroon keroog gunge la keroog mënoo woon a échec doyen foog nga gagné keroog ñu ngi leen di jaajëfal ñoom it bu baax a baax a baax di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ni ñoo fi nekkoon tey ku ci mel ni Didier Da ma dimbali ko rek yóbbaale ko yaa moom normalul duudu kilifa gi ñu ngi koy bégee bu baax a baax di ko ziar moom nit ku baax la ziar ma job job sëfër ndaanaan la ziar Babacar Sow mi nekkoon ci régime bi gis ngeen qualité image yeeg euh, weccat wu sew woowu mu doon dugal ci biir mi ngi noonu c'est la nuyu aussi moom du Seck directeur général di ko jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bi ci kër gi mais ci liggéey bi ci biir làmb day dagg yitteem dagg temps jël alalam def ci lépp ngir làmb Cees jag dañ koy jaajëfal ci biir kër gi ak ci bitti mooy ci làmb di ko ñaanal jàmm xéewal sutura tawfeex na ko waa làmb bàyyi xel na ko waa làmb bàyyi xel nañu ko bàyyi xel parce que bu ñu ko bàyyi xel rek làmbu Thiès dina jëm kanam bu baax baax a baax a baax nuyu directeur programme Khadim Soumaré nguy Fama la Linguère directrice commerciale nuyu ñëpp gërëm ñëpp seen mbokk la woon Pambeng alliance sopp da baax ci kaddu gi di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen émission Faxat jaa ngeen jëf